يختار takrimaha eh, eh. bismillaahi rahmaani rahim salaamualeykum wa rahmatullah ñi ngi ziar mbokk yi nekk ci jataay bi yëpp eh, daara yeeg mbokki taalib yi nga xamante ni teew nañ fi tey ji ngir bis bi nga xamante ni woote woon nañ ko mu jëm ci assemblée générale boo xam ni conservatoire nationalu daara Hizbut Tarqiyyah Daaru Xudoos ñoo ko woote woon mu jëm ci waxtaan woo xamante ni war nañ koo waxtaane suñu biir ak évaluation boo xamante ni it muy jàngat goo xamante ni war nañ koo jàngat li nga xamante ni moo weesu ak li nga xamante ni moo nekk sunu kanam kon loolu war na ci ñoo xamante ni bu ñu àndee diirub at loolu warteef la ci ñoom ngir ñu jàngat li nga xamante ni weesu nañ ko waaye it ñu xool li nga xamante ni mooy nekk sunu kanam taxawaay ban lañ ci war a am kon loolu mooy yillay waxtaan wi kon ni muy bëgg a tëddee li ci jiitu day am puron mooy waxtaan woo xamante ni waa comité scientifique ñi nga xamante ni ñooy boroom xam-xam yi dinañ ko def thème bi moom day jëm ci def ngir yàlla kon loolu sëñ Abdourahmane Dieng dina ko def buñ ci noppee dinañ def benn bilan boo xamante ni mooy jàngat gi nga xamante ni wees at mii ñu génn conservatoire dox na ko jàngat yi ñu ci xool ak li nga xamante ni war nañ ko joyantiwaat ak loo xamante ni fi mu toll ni am nañ ci satisfaction kon loolu sëñ Souleymane Fall dina ko def bu ñu génnee ñetteelu tomb bi dinañ présenter organigramme bu bees bi nga xamante ni conservatoire jël na ko organigramme boo ko déggee mooy tëralin wi nga xamante ni noonu la ñu tëralee conservatoire bi département yi ci nekk pàcc yi ci nekk ñiñ ko dénk ak liggéey yi nga xamante ni conservatoire mi ngi koy xaar ci ñoom kon ñetteelu tomb boobu dinañ ci ñëw ñetteelu tomb bi dina ñëw ci soññe boo xamante ni dafa gëm ci njàngum xasida li nga xamante ni tool bi nga xamante ni ci lay nekk muy toolub xasida melokaan wi nga xamante ni murit bi ci nekk war na koo mel taxawaay bi nga xamante ni murit bi ci nekk war na koo taxaw ak cosaanal loolu loolu fan lañ ko jëlee ba mu egsi ci ñun kon loolu intervention yi dina ci bari ndax suñ musaa Mbeng dina ci ñëw sëñ Moustapha Ndiaye sëñ Matar Diène mbokk taalibe yi bu ci beneen bi ci topp dinañ jëm tamit soññe boo xamante ni day jëm ci doxalin bii nga xamante ni moom moo nekk suñu kanam taxawaay wan wa ci daara ji am kon ci biir doxalin woowu ci la ñuy communiquer waale règlement intérieur boo xamante ni conservatoire national tëral na ko muy doxalin woo xamante ni conservatoire tëral na ko mu jëm ci kuréel yëpp settewul kenn kuréel national ba ci gën a kuréel 5 bi nga xamante ne bu ñu tudd moom la ñuy wax ni kuréel yi ci gën a nekk suuf kon règlement intérieur boobu dinañ ko tasaare ci kuréel yëpp ginnaaw bu ñu ko jàngee ba noppi am na ay développement ak ay résumé yoo xamante ni ñoom sëñ Souleymane Fall ak soom sëñ Moustapha Ndiaye dinañ ci ñëw leeral ko ci kon waxtaan wi noonu lañ bëgg mu tëddee bu ko defee fii ak tàkkusaan bu ko defee bu ñu mënee ñaan rek tënk daal di mën a yeewee ko kon dañuy jox sëñ Abdourahmane Dieng mi nga xamante ni mooy war a def prône bi mu ñëw ci waxtaan wi Bye-bye.